Serigne Abdourahmane Mbacke bi nga xam ne mooy xalifa njabootug Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo nekkoon wasila ki nga xam ne moom mooy tey jii xalif général des Baye Fall di Serigne Amdi Fall Mbuudu Mbenda waaye nag da koo jox ndigal nekkoon na dem yeeslo ji ci ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke Bachir ndax xalif général des bay Fall xalif général de Mourides rek moom moo ko mën a yilif. léegi xew lu ñu suñu borom booleel la mënut a ñàkk kër gu ne lay nekk sëriñ am ni mii taaru Xuddoos la nekkoon te waajuram moo ko fa bàyyi woon muy sëriñ Modou Fall Mbend loolee nag la doon doxal ba nëgë ba nekk maam Cheikh Ibra Fall moom mii toog nag sëriñ Abdourahman Mbakke mi kilifaam moo ko jox ndigal ni ko xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall xalifa sëriñ Tuubaa rek ko mën a yilif dara du jóg ci sama digg ak la ma leen daan defloo ak la ma leen daan waxloo ak la ma leen daan sant di leen ñaanal di leen jaara it li mu bokk ak yéen muy Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi bàyyi ko démb mi ngi koy jaale bokki taalibe yi mu ko bokkal yëpp ñu di ko ñaanal moom mii liggéey bu Serigne Modou Fall mel na waroon a liggéey Cheikh Fall te fekke woo ko loola ñëw na ci moom tey jii Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall mel na tey jii moom la yàlla def mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall kon nañ ko ñaanal mu yàgg fii buñ ko fari téye